bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ginnaaw bi ñu santee yàlla sant We mbindeef teraanga weesu nek jamu piala, yàlla ndax na dara jaam toll mandar màndargawu ci li nga xam ni moo tax nga nekk muy buur yamu ja bind doomu aadama gannaaw ba mu coobaree woo ñu xam ko ba mu ko bindee ba noppi wut ay laj mbind mi ngir mu jaamu ko ndax ñu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni kon doomu aadama yàlla da ko bind ngir ñaari anam waaye ci ñaari jamono jamono ju suufe mu bokkoo yeneen mbindeef yi tàmbalee ko ci bàyyi may ba ci gunóor yi bokkoo jinne yi waaye am nay malaaka tamit yu ci bokk beneen jamono ji nga xam ni fàttlu ci àdduna tàggoog dimension maanaam nekk ci barab nekk ci jamono dem ci beneen aalam boo xam ne ñaar yooyu yëpp du fa am muy kër goo xam ne dañ fay sax dàkk ci kër googee xaal wala maxam bañ fay nekkee ci àdduna bii nga ko fa bokk mu bind doomu aadama wutal ko diine xamal ko lu baax xamal ko safaanoo yamut ci loolu mu wutal tam xel ba noppi bàyyi ko mu am coobare fésal li nekk ci moom benn mu fésal li ko suñu borom sant ci jëfam waaye te mu sëfal fasa euh, euh, safaan wa ci tànneefu boppam ba mbindee aadama nag dafa am mbindeef meneen moo xam ne moo fi jiitu aadama ci zahir ku ne xam ko mu am wal boo xam ne dana ko jëf fii ci àdduna bi wàll woowu weesuwut lu dul xëcc am mbooloo ngir fas yéene saxaat moom sa fi ñëpp di bañan kon loolu dañ ko doon def mu xaddima ndax dañoo waroon a jiital ab nuyoo ak cant ci ñi nga xam ne ñoo dox suñu digganteeg mbindeef moomu jëlee ñu fu ñëpp nisal fas yéene jëme fi ñëpp bañ ñooñu sos fi tariixa waaye ñoo am ñu leen ci toogal représenté leen nekkal leen fi di seen jëwriñ kon ñooñu lañuy delloo njukkalu ñi nga xam ne ñooñu fi teg kon muy nuyoo ak cant bu ñuy jotal ñëpp képp koo xam ne yaa ngi ci bopp tariixa di teg ci nuyoo bi ñi nga xam ne ci lislaam lañ fi toogal ñi ngi ci jàkk yi waaye ñi ngi ci barab yi nga xam ne dañ dañ leen fay soxla ci dunduk aadama digganteem ak yàlla yamuñu foofu ñi ngi ci daara yi ñu ngi ci tuddi ñu ngi ci dëj yi ngir teg nit ñi ci siraatal mustaqim waaye yamuñ loolu di leen ñaanal ngir suñu borom jéggal leen ëllëg muy imaam yi nga xam ne ñu ngi ci jataay bi di sargal nag ñi sos jataay bi ndax jataayu lislaam la waaye jataayu jëriñu la jataay la boo xam ne nit dana bind ci xolom lu suñu borom di sotti ci xalimaam ndax dañ ne alsinatul xalqi aqlaamul xaqi lan mi ñu nit ñi ci boppam mooy doon xalima ga suñu borom di binde jotaay bu mel nii nga xam ne li tax nit ñi jóg du leen lu dul suñu borom ak mucc ci moom ñu waxoon mu mel biñ am na ñu ñëw sakku waxtaan ci jamono ak gone yi fekk na ñun nisaroon nañu waxtaan ci ibliis ak jamono kon ñu ñaari mawdu yoo xam ne dañoo gëndaloo ci loolu la ñu fas yéene waxtaan moo tax bii daf mu xaddima ñu teel a yee nit ñi ci nekku iblis ndax ëllëg ba ci jamono jii amul benn seconde boo xam ne amul loxoom bu ci nekk am ay jumtuwaay yu ko jëfandikoo ci jullit ñi ñu gis ni société bi yàqu na yàqu boo xam ne te lu mu daan yàqu ci téeméeri at léegi ci fukki at la ko yàqu daa di am ci jamono joo xam ne yàqu gi par dix la ko nit di yëg te loolu lépp suñu dégloo ñetti discours yi mu def dinañ bari lu ñu xam ci jeexital yi mu am ci dund doomu aadama yi ndax Iblis ñetti discours la def bu njëkk bi bi ko suñ borom su jotloo aadama mu gàntal bañ alak ko lu mu wax bima axwaytani la aqudanna lahum sirataka almustaqima suma la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajidu aksarahum shakirina tegaat ci loolu lam ca na dafa ni yow suñu borom ni toroxale dinaa ferankulaayu dinaa gàpparu ci yoon wi nga xam ne moo dox sa digganteem ak jaam yi ngir ñu dox jëm ci yow dinaa leen dikkee ci kanam dinaa leen ñëwee ci ginnaaw dinaa leen fëlle ci seeni ndeyjoor ak ci seen càmmoñ ca ñu ëpp ci ñoom duñ la gërëm lu ñu nangu sax li yaay seen boroom duutu ñu nangu li leen digal ci la ñuy jub maanaam du sant boobu mooy bi mu suñu borom moo jiitu ci discours yi beneen bi ci topp mooy bi mu defal doomu aadama ñoom ñaar bi ñu wàccee suuf ba noppi te sant doomu aadama mu dund ci diine discours boobu moom lañuy ñuy mujjee beneen bi ko ñetteel su doomu aadama yi demee barzak ba ñu dekki taxaw nga xam ne foofu iblis doomu ak Seydina Isaa ñoo fa am kaddu foofa iblis li mu wax alxuraan moo ko indi inna wax waxaala seytaan lamma qudi al amr inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum faxlaftukum maanaam suñu borom ni kat digaloon na leen ni seetloo na leen wax yoo xam ne du dañ mukk ca loolu mooy dëgg maanaam indil na leen diine xamal leen ci lu bari xamal leen ne ëllëg su ngeen ko toppee da am añ boo xam ni euh, dinay weesu seen jot mu ni moom iblis moom tim mu dig leen waaye nag nee na daf leen a war yàlla dig na leen dëgg man ma dig leen war leen aleykum salaam aleykum salaam lu mu ca teg wa maa kaana li alaykum min sultaanin illa an da'awtukum fastajabtum lii discours boobu maanaam genn wàll loolu ci aayam bi dana ko indiwaat ci discours bi nga xam ne moom lay defal doomu aadama bi mu ñëwee ci suuf ndax dafa wax foofu nii musuma am benn kattan musuma am benn sulta benn saytara ci loon dudul ma woo leen rek ngeen wuy si ma soo xoolee alxuraan lépp soo ko toppee doo gis ne ci boppam iblis moo obligé waa ji mu def ko déedéet daf lay influencé rek daf lay woo ci jëf safaano wa maa kaana lii alaykum min sultaanin illa an da'awtukum fastajabtum lii yéen yéen a coobare woo ñëw wuy suma loolu muy musiba bu mat lu mu ca teg falaata falaata nii wala mu anfusakum tey jii nag bu leen ma ngàññi ŋàññi leen seen bopp kon moom dawoon responsabilité comme nee na yow yaa jëloon sa coobare bopp man ma woola ci li ngir sànq la ëllëg nga wuy si ma te musuma am benn saytara musuma am benn kattan ci yow kon nag sañ naa wax ni tey jii bu leen ma ŋàññi ŋàññi leen seen bopp kon discours boobu rek doyoon na dës lu mu ca teg maa ana musrikum wa maa antum jii nag man soo gisee Iblis discours am yëpp boppam lay jiital mu xeebe doomu aadama bañ ko sujjóot loo aadama bañ ko sujjóot loo aadama ba nëgë ni ne boppam lay jiital rek waaw tey jii nag du man maa leen mën a sauver te yéen fi mu ngeen ma mën a sauver mukk loola war naa tiitloo ku ne ndax moom dem na ba xam ni fi mu xëccoon doomu aadama yi tey jii ku dul suñ borom mun la faa jëlee kon moom nam la fexe woon ba influencé la dugg sam xel xalaat loola jël ay jumtuwaay yoo xam ne du dara du mat fexe ba ndax daañ ci agsi ci discours bi ci digg bi pexe yu ci yëpp moom ci boppam ci discours boobu wax na fexe yi muy fexe ba noppi ñëw ni doomu aadama xanaa su ma ñëwee nag di wax dinaa la bett de iblis discours foofu la ko tàmbal de xanaa su ma ñëwee di la wax dinaa la bett de ndax xaar loo woon ndax xam nga ma soo ma xamul bàyyil ma présenté sama bopp daal di tàmbali ni man mbindeef yàlla laa woon mbindeef loo xam lu mat la woon sama yéene musul nekk dul képp ku yàlla bind mu gën laa nekku jaam féeta a kaw demoon naa ba sabak leer ku boppam mëdd leeru malaaka yi nekkoon suuf yëpp ba ma jiite leen nga xam ne suñu borom nanguloon na ma sama nisar yëpp ba ma féete kaw ñëpp waaye ba ñu bindee aadama ma xam ni ña Fiji fi jiitu woon ci tooñ ak ci luum rek lañ nekk tax ma xeeb ko ba làng ko sujjootal ndax man du ma sujjootal képp koo xam ne dañ laa bind ban dañ bind ma safara loola sama sama sama texee di ba suñu borom ci boppam dikk ma ni moom di du du jóg mu safara te loolu lépp yow doomu aadama yaa ko dal kon ba nga ak man te safara dinaa la wax tey jii pexe yi muy jël xanaa loolu dina la jaaxal de loolu la ci ndax nit ki dañ lay xeex bi ba noppi di ko waxi pexe daal di nag dina la jaaxal waaye man jaaxaloo ndax xam naa su ma noppeeg yow ci li ma lay xamal ba noppi balaa nga fay jógee dama ko fàtte dellu si ci li musuma laa wax dara mu ne waxtu woo xam ni xeex naa ak yow ba gañe nee na waxtu woo yégee dina gañe naa la fekk na booba ci boppam jeexal na mënut loo deltu ginnaaw mu ni la may tàmbalee ci yow mooy dinaa fexe ba dootoo sum suñu borom danaa fexe ba indi ay mbir ñu ne lii ay yàlla lañu ba nga gëm ko ndax yàlla wax na ci alxaan wa kazalika jaxalnaa li kulli nabiyyin aduwwan shayaatina al insi wal jinni yuuhaa ba'duhum ilaa ba'din zukhrufal qawli ghataa kon ndek yonent bu mos a wàcc rek suñu borom toxtal na iblis ci wetam su yonent bi ne yàlla moom mu wax beneen yàlla wa inna Ilyaasa xaalis xaw ma allaa tattaquuna atad'uuna ba'lan wa tazaruuna ahsana al-xaaliqiin allaahu rabbukum wa rabbu aabaa'ikum al-awwaliin Ilyaas nii ci yonent yi la bokkoon mas naa wax nag aw ñooñam ne ah da di sàggane suñu borom topp ay yàlla bàyyi ki nga xam ne mooy mbindaa kon bi gën a mat kon day wane ne yonent bu ñëw bu ñëw iblis taxaw na sawet discours am boobu bokk na ci su waxee naa fexe li ma njëkk tàmbale ma fexe ba dut leen gëm yàlla lu ca teg su ngeen demee ba rëcc ma ci loolu ma fexe ngeen dëkkee bàkkaar yu mag yi bàkkaar yu mag yi nag am na lu mu ci lim ba mu njëkkee def ni fexe ba ngeen bañante noonante su ma paree ma teg ci ngeen bàyyi julli ak woor su ma paree ci yéen mu fexe ba ngeen dëkkee di wax lu dul ma noppee loolu dinaa fexe ba ngeen dëkkee jaaloo su ma noppee ci loolu dinaa fexe ba ngeen dëkkee naan sàngara waaye nag su leen yàlla mayee seenu ngëm mu wees foofu bu leen naagoogum de am naa beneen pexe boo xam ne waxaguma leen yooyu yëpp subventionné ba noppi ma xëcc la nag ci bàkkaar yu ndaw yi ndax su boobaa lu ngeen njëkk seen xel ni ah bari na bari waaye boo xam ne foo tëdd koñ boo gis yaa ngi gis koo xam ne mi ngi def bàkkaar bu ndaw wet dootul nekk loo xam ne dees na ko ay wala ñu di ko sib dinaa fexe ba nit ku la romb nga xool ko bëtut iñaan da nga dem ba nga xam ci boppam bët ba ko xool muy bëtut iñaan dootoo yëg ni iñaan nga xool da ngay jàpp nangam ak nangam dinaa ba kenn ci nekk ci di ñee di ñeetaan ki nga xam suñu borom moo ëpp xéewal dinaa dem ba nga xam doomu suñu borom ko defal nga ko la defal ngeen ci marché bi di jaay mu jaral nga def ko noonu ngeen bokk benn wéyu suñu borom jox koy milliard jox la nga iñaane ko mu xëy suba mën a jàng am diplôme ñu jox ko am liggéey nga iñaane ko yàlla def ko mu ëpp wërsëg su solee ba ci jëmmam rek su solo ngeen ànd nit ñi topp ko nga fas yéene koo yàqal comme jaral dem ci sëriñ bi mu ne waaye itam leen yàlla mayee kàttan baaxe leen ba ngeen mën a mucc foofu beneen fexe daal di dugg rek dinaa fexe nag ba ngeen dëkk yëg seen bopp soo jullee ñaari rakka te diw julliwu ko nga jël sa bopp teg ci kaw suñu borom bind nga ni du noonu dinaa fexe ngeen dëkkee di am xeemem teef ci lépp loo xam ne màdd la dinaa fexe ba su ngeen jógee ci xeemem teef bii ba am ko ngeen tàbbi ci beneen rek nga xam ne seen dund yëpp da ngeen di jaabante ci diggante li nga xam ne mooy neex doomu aadama yi seen bakkan si leen yàlla dimbalee ba ngeen mucc ci loolu ma xiir leen nag ci loo xam ne araamu daganu waaye da nga ci ñàkk sa jamono foofa nag mooy liy gëndaloo ndaw ñi ak jamono ñuy indi waxtaanu di ko accès ci li ëpp si ñun lii ñu ngàbbu muy téléphone ak ay jeexital yi mu am ci ndaw ñi iblis ku yàgg la ay pexeem bañ ko wàccee ci suuf la ko tàmbali te ku bari woon xam-xam la daa war nañ jàng ci la maxuus yàlla may ko muy xam lu ñëwagul iblis mën a nekk fépp ba ci xolu doomu aadama mën a nekk ci jamono yëpp amul benn saa bu koy rëcc yàlla may ko kattan mu mën a waajal nit koo xam ne maamam ganeewut àdduna tax xam ni jamono li dëf tëggee ndax suñu borom moo ko may kattan loolu muy tàmbalee waajal doomu aadama fi mu ne téléphone bi dañ cee tolloogum waaye xeex yi iblis yàgg xeex jaam ñi si bi ñu ganeegul àdduna foofu la ñuy tàmbale ndax lislaam dafa sant jaam bi mu tànnal doomam ndey ndax jukkoo yi ngay donne ci sa ndey moo gën a dëgër moo gën a foor rawatina nag su fekkee ne ay ay la ci yi nga donn ci sa waajur moo tax lislaam santaane lool moo tax ñu naan la jigéen mooy jur wàll yi xam loolu tàmbalee xeexam te foofa lu muy njëkkee fexe ba léegi takkatuñ soxna ndax dafa am diine waaye dañ koy takk ngir rafetaayam lislaam nag maye na ko waaye nag dafa gënul soo mënee am rafetu diine ba noppi taar ba topp yi xayru waaye jukko ji moo tax ñuy wax Ibilis daal di taxaw léegi ci fànn yi ñuy xoole soxna la njëkk a dindi ci xolu doomu aadama yi su ko defee léegi gisante rek mu deme noonu soxna si jógee kër ndeyam kër baayam ak lu mu ñëw ci kër gi ak ay ñoom bi mu fi ñëwee yàlla def mu wan na fi lor Iblis daal di taxaw commencé samp ay euh, li nga waxati ay jàngoro ci gone googu nga xam ne juddoo bokk na ci ngànnaay yu mujj am téléphone portable yi ak télévision yi jigéenu wérul bu koy jege mu ngi am jeexital ci sa doom te xamoo ci dara même sax su fekkee ne gone yi juddu na ba pare am na ci benn lumière boo xam ne lumière bu bële la soo doon nelaw sax te nga taal téléphone bi mu nekk sa wet day daal di perturber nelaw ya ndax dafa am benn ndox buy nekk ci yuuru doomu aadama mooy tax doomu aadama bi ci boppam am xelam di nàcc lu bari mooy tax muy reposer téléphone bi da koy arrêté da koy wàññi jigéen ji war na lor bi a bi mu nekk télévision lay gis muy génnee musique wala théâtre boo xam ne ñi ca nekk ñëpp suñu borom daf leen rëbb te gis nañ ne ci télévision yu njëkk yi écran yu njëkk yee nga xam ne tube cathodique lañ koy tuddee nga xam ne dañuy sànni ceeñeeru électron mu tapé ci écran bi waaye day am loo xam ne dafa des waaye day am lu jàll si mooy indi lumière bi ak effet yi nga xam ne moom la wax moo def ci bët loola gis nañ ni day wàññi xelu liir bi ñu ne jigéen ñi kaay jël ordonnance ñëwal nga jël feer ndax day tax nga kattan te ku ci ne xam na ci diina ni deret yu bari day wàññi nga lépp di pexe iblis te doomu aadama ñu ko yëg ndax bokk na ci li mu mën dëgg dëgg dëgg dëgg mooy dina nëbb boppam nëbb la yow sa bopp nëbb la yàlla moo tax ci tàmbali discours bi mooy su ma ñëwee feeñu leen dañ leen bett ndax du woon aadaam deret di bari ku ne xam na ni amul dara lu yàlla bind ci amul jeex ci doomu aadama ndax doomu aadama lépp luy màdda ak loo xam ko def sax yàlla bind ko ci suuf mu ngi doomu aadama te lépp lu am màdda lépp luy mi def am na leneen lu jeex ci yow su ko defee ñu ne ko kaay dafi échographie échographie dafa bokk ci li ñuy wax maanaam appareil bi koy def ci fonction yu def dafa bokk ci li ñu tuddee onde corpusculaire maanaam day traversé matière jëm ci beneen matière te amul lenn lu mën a jaar ci lenn ci bàyyiwuloo fa jeexital ku ne xam na loolu yéen ñi doon def échographie échographie yi gis nañ ne xalaayaayi maanaam li nga xam ne mooy composé doomu aadama ca tuuti boobu ñu kon te mu am ci tolloog juróom-ñaar fukki junni benn bu ci nekk onde corpuscule bu ko laal dina wàññi tension maanaam courant bi nga xam ne moo dox ci yaram wi jële ko 1 virgule 4 volt indi ko ci ci 0 virgule 8 volt su ko defee doomu aadama boobu diggante boobu yaram yëpp am na perturbation ndax doomu aadama ni ko yàlla bindee ci ñetti énergie lay dox bu njëkk bi énergie chimique muy deret bi nga xam ni li tilim li dana ko nettoyé lu bon ne mu génnee ko fi li ci def mu véhicule ko dina dox nag ci onde électrique nag ndax da nga gis léegi ñu rey dara mu faatu ba noppi continuer di yokk ndax lii nga xam ne mooy cër yi di suuf yi courant moo koy doxal cellule bu ci nekk 1,4 volt la wax donc doomu aadama moom ci boppam ni ko suñu borom bind li nekk ci moom ci courant bi mën naa taal gaay gi ñetti weer nit ku si nekk yor borom si nit dem te gis nañ ni yuuru doomu aadama day dox comme ni onde rajo yi di dox ak ondo téléphone bi manam ni téléphone di jokkoloo wala rajo yi juga Dakar tok ngelaw li ñëw fii xelu doon waxaat noonu lay fonctionné ba soo demee ci laboratoire yi gën a mag ba ci sax roplaan yi ñuy xeexee américain yi am na ci roplaan yoo xam ki koy dawal casque rek lay sol limu mu xalaat la avion di def kon mën nañ ko kon mën nañ ko def ko doomu doomu aadama itam def effort bi daal di ñëw nekk ci kër gi di dund nag këram ni ko fexe na ba boroom kër gi daanaka lépp lu mu indi ci kër gi dina am loo xam ne riba la dina am loo xam ne xàqu doomu aadama la ndam am na ci loo xam ne ndam ko amee ci mu rafetul dundal ci wane gi yaay ji dëkke télévision moo tax léeg-léeg gis benn liir liir boo xam ne saa yi du taxaw taxaw bi sax du ma tagu mu commencé fecc fan la ko jàngee télévision bi dafa am jeexital ci moom ndax gis nañ ne liir bi su nekkee ci biiru yaayam benn waxtu la koy xoole waaye fii ak mi ngi am bur wi jigéen ñi am ñoom xam nañ ko bur bi foor sax su xoolee ñu yëngu seen biir yaay kon am nañ am nañu yëpp ci li biti ñoom xam nañ loolu nga dëkk télévision dëkk musique bi wane gi waxtu rek la waroon di yow li ci des yëpp da ko waroon nelaw musique bi daf koy perturbé ba nga xam ne si juddu dana fekk lu bari ci lu yoram wàññeeku ndax borom xam-xam yi daal dem nañ ba xam ne doomu aadama ki gën a yow ci doomu aadama yi capacité maanaam suñu borom nam ko bindee ci yoram jëfandikoogul téeméer maanaam téeméer ba juróom yi ci téeméer mu naan 5 pour cent doomu aadama mos boo jëfandikoo yoram. ndax yuur gi mën ngaa dem jëfandikoo ko soo xasee ba àgg ci 15 pour cent da ngay daal di yëg ba ci yëg sa pepp karaw yi soo demee ba 20 pour cent léegi da nga mujj sax soo woppee ci boppam da nga mën a jël ay garab yu nekk sa biir yaram faj sa bopp xam da nga xam ci microbe yi am soo demee ba àgg vingt cinq 30 pour cent nag su boobaa yow li nga xam ne dafa nekk ci biti maanaam su ma toogee fii mën naa commandé téléphone yi yow ci xalaat rek iblis nag loolu lay bañ. soo gisee xeex yu njëkk yëpp li ko nekk si biir lépp ci yuus gi la jëm da koy xeex gone gi gane àdduna fu muy gane àdduna hôpital taawal bi nga xam ne ci boppam Mouhamed bii di ñëw nga xam ne ay ndeyam baayam jullit lañ taawal ba muy gane àdduna Jean Pierre ba faragatee àdduna nga xam ne kii istirdaad yi am yëpp istirdaad bi jullit la ndax soo yàggee jàng alxuraan sax baatinu alxuraan bi day jeexital sa deret kon day jeexital ci ci sa njaboot naka noonu soo yàggee jëfandikoo tim lu xaraam day dem ba feeñ sa njaboot léegi nag kii jëm droite bokk ndab li ki jëm gauche yamut fofu ñu gëm loola ni dañ laa war a ñàkk toqantal la daan bind xam ba di nampasah sax dañ daan bindal toqantal alxuraan yi sa biir léegi nag produit chimique mooy jiitu jigéen ñi ko ci ne bul def hôpital sax wala bul def éco daf koy jaral de xamul lu baax am lu koy wut toqantal yi moo fexe nag lu ñu lay wax ay microbe la nga ñàkk bopp bàyyi moo ne suñuy maam ba nga ne toqantal lañ xam ca bariwul man di gisaguma ko mu rey moo tax liir yi dañ daan juddu mu leeral na ni ni ñuy dundee ci seen biiru lay dafa àndoon ak dalu xel ak dalu xol moo tax dana ñëw ci àdduna lu yàgg indaale xaar booba lii da daan judd dina toog semaine du xoole daawul tàllal baaraam yi léegi nag gone yi day judd léegi di xool ñu ko réew ni wala mu tàllal loxoom di laaj wàllam ci àdduna loolu mooy li am loolu mooy commencé na dunduk adunaam ci biiru yaayam ndax soo xoolee xaal bi mu ñëwee dépassé na lu mat weer xaal bi mu waroon ñëwee di pexe iblis doomu adam du ko xam gone gi juddu ñu yaay ji kat te soo ko mën naa am santé ci yow wala nangam nangam toog nañ fi at yu bari dañ daan tere jigéen ñu seeni doom waaw nañu xalaat tuuti rek nag mi lay judd léegi dox lay judd léegi su tegee waxtu dox doomaa aadama day judd léegi dina toog ñaari at du dox nag mi lay judd léegi ñetti weer poids am doublé doomu léegi dina dem at ak lu topp poids am doog doublé nag mi judd léegi yaramam ni mu toll soo ko doon méngaleeg boppam yaram mi day rëy bopp bi tuuti doomu aadama lay judd léegi boppam ni muy réyee ci par rapport ak yaram waxtu bu màggee bopp bi day commencé wàññi ko yaram wi ci lan mu wàññi loolu lu dul meew mi ñu naaw ndax xeet mu nekk da ngay li nga xam ne ci boppam moo yelloo ko soo xeet doomu aadama comme nit kuy xalaat la su juddoo xel mi ak bopp bi mooy njëkk a développé parce moom lay njëkk a li yóor gi di soxla nag ngir man di xalaat ci meewum yaay ji la nekk ñu jox la nag meewum nag gone yi léegi dañuy judd daanaka du ñu indaale presque melnum xal am na benn waay boo xam ne gone yi léegi dañuy judd ñàkk xam dara suñu dem lam ca teg sax du wax <laughs> waaw moo soo soo nit amoo xel ba ñàkk xam dara moom dof mujj xam ko ñu jox la meewam nag wala bañ laa nàmpal te gis nga yàlla dafa xeriñ xikam da nga gis léegi seen soxna am doom sibburu ba ko jege mu wàll la di nàmpal doomam te du ko wàll mukk ndax meew bi mu yore su génnee xam nga yàlla mu ngi noonu xam na ni liir du nàmp meew mu tàngal dafa am température li nga meew moom degré bi mu wàccaale microbe bu ci dal dee moo tax sa yaay dana feebar di la nàmpal te du la war ñu la nag léegi ndaxte li nekk ci meew mi moo lay aar ci microbe yooyu ñun la sa yaay bu la nàmpal ñu teg ca ñun la jarul muy naan ndox ndax ndox mi nekk ci meew bi doy na maanaam damay jàpp ni léeg ndax dañu damaa jàpp ne dañ dul xalaat dañu ne ndox mi nekk ci meew mi doy na waaw di nekk ci meew mi nee nañ ndox la waaw xanaa bokkul ndox mi ñuy naan ca tubaab bi lu mu ne ko wax nee nañ meew du boisson aliment nga xam ne yow soo toogee ay weer dootoo yam ci lekk gi da ciy boole naan te ñun ñii mag gis nañ ba tey gone daan juddi léegi ñaari minute ñu doxantal ko pour naan na ndox te ñi daan sëpp seeni baaraam ci pot bi jox gone gi mu naan te ñoo ñu daan gën a wér xam nga lu tax ñun la bul ko jox ndox ñàkk yi ñu ko ñàkk la ñuy bañ ndox mi éliminer loolu mooy fekk rek ndax ndox lu mu fekk ci biir doomu aadama da koy nettoyer da ci bokk dañoo bëgg ñàkk yi leen ñàkk yi nag daan ci ñëw su ko defee nga daal di gëm bañ a jox ndox ñàkk yi def effet ñu ngi nàmp nàmp na néew ndeyam màggee ci loolu xelam wàññiku wàññiku koo xam ni ci àdduna ak si woon ci benn niveau moom mu gën a àdduna waroon a yem niveau bi ndax ku la mujj jut léegi moo la gën a xam portable ndax dafa dafa méngoo jamonoom mm-hmm. yow sam xel day wàcc féetal parce que dafa bokk ci programme ñi nga xam ne ñoo fi toogal Iblis parce que li ci discours am wax na loolu dinaa fexe ba ñi nga xam ne samay dongo lañ ci déggal ma daañu leen jëfandikoo ci ay jumtuwaay di leen def loolu loo xam ne du ngeen ko mën a sañ bañ a def am na ci programme ba ni léegi dañuy dem ba nga xam ne li ñu soxla ci àdduna bi mooy téeméer bu nekk su ca fukki nit xamee dara jiite li des ci doomu aadama yi ñu leen utiliser comme ni ñu yooyu yëpp xam naa programme bu gudd la daañu ci daan ci dellu si gone gi juddu dund ci condition yooyu fekk ci télévision balaa ñuy ak ci télévision yi rajo léegi daanaka nit ñi passé nañ ko ndax bu njëkk iblis xam nga dañ ne shayaatiina al-insi wal jinni ay seytaane yu bari moo am di iblis rek te kenn rek seytaane bu ci nekk nag la nga xam ne ci boppam moom ci nga def taxasus suñu borom ci loolu la la bindee dongo yara dana topp te loola nga leen bi mandal mi ngi mel la suñu sëriñ sii rek yor fi tarixa kenn ku si nekk su jëfee rek nga xam ci tarixa bu mbokk ndax ab sëriñam moo am jeex ci moom daf ci am nag ci sayaatin yooyu ñoo xam ni seeni i dongo dañ leen jox xam-xam boo xam ne dina rawee nit ñi lu mag ñett ñoo xam ne danañ leen xamal loo xam ne ñëwagut lenn li dëgg lenn li fen am ci ñoo xam ne daañu la jox kàttan ba fu ñu tàllal seen loxo ñu jàpp ni ñu jàpp ni kii yàlla koo baaxee am ci ñoo xam ne pouvoir ak alal lañ leen jox ba mu àgg ba mu àgg ba mu àgg ndax gis nañ ni ci histoire boroom xam-xam yu mag yépp nga xam ni xalaat nañ ba sos yenn mbir yoo xam ne danañ dem juróom-ñaar téeméeri ak loolu dara du ko dépassé mosu ñoo nekk jàngkat bu baax am na ci ñoo xam ne daan daan na ci ñoo xam ne juróom dañ daan daw école ku leen xamal xam ku leen jox xam-xam boobu loolu iblis waaye ñun ñëpp matériel rek matali ñëw gone gi nekk ci xaal boobu ndax rajo ba mu amee la werante bi tàmbali tiijaan yi wari nañ di yi wari nañ ndax bu njëkk su ti tiyawoon waree woon tim avant rajo di am soo toogee fële ca njaam bu mën a koo bañ a xam day warante ndax dafa bëgg nit ñi di dégg loo xam ne mën naa ba tey nekk dëgg sax di ko gëm waaye rajo dafa am fu muy am ndax mën naa dégg ñu ne diw wax na ko ne ah diw moomu de moom moo xam diw day am ah, ah, rajo dayul daal sànq doomu aadama yi fexe léegi nag léegi lu mu dégg na ko gis teg loolu weddi weddi soo tegee suba dana yokk seen gëm ñu eh, inventé eh, télévision ah dégg nga xibaar waaw ñu génne ko journal télé bii de teg ci sama noonu ñu dem nit ñi di yàqu télévision di leen soppi waaye Iblis di foofu loolu doyul dafa bëgg léegi soo yàqoo ba noppi nag yàqu gi di maasale ndax soo yàqoo rek yam sëgg doo yàq kenn mu inventé téléphone portable léegi nag dootoo dégg yam te dootoo gis yam waaye dañ lay envoyé image nga xam ne mu neex la mu naqare la nit mën na la koo jox te doo ko bañ soo bañee dem seetaan télé kii bi journal bi nit mën na laa envoyé journal bi internet ñëw loolu lépp ci programme la loolu ñu ngi tolloon nag ci xale bi bi mu gënee àdduna ba am ñaari at fekk fi télévision bi yaayam bus bu nekk fa lay toog yaayam ci boppam lu xale bi mën ci jooy wala yu doomam su émission bu neex jotee toppal fële naa nga woon du am temps mu ko xëyaat xale bi wala mu xool fu nekk ñu teg ca indi li ñu tuddee bande dessinée mooy mike yii mike yi su ngeen gisee gone yi mu dem ba nga xam ne dana fab bi seen xel wala seen teewlu dara dañu xam ne tubaab bi dañoo jàng ni doomu aadama su nekkee ndaw ab gisam ab déggam day gën a ñaw ci su amee ay at ñu gis ni gone yi itam ni muy gisee àdduna wute naa mag mi ni muy gisee àdduna ndaxte mag mi yàgg naa jëfandikoo ay bëtam yàgg naa jëfandikoo ay noppam su xoolee lu ko neexul mu daw day fekk la ko neex mu dem déglu ko di ko neexul du ko déglu waaye gone dafa gone moom lépp li ko wër day bàyyi xel moo tax dala toog sa kër waxtaan jàpp ni gone ñi ngi foofee waaye dara rëccu leen ci ñu gis ni nag benn mbir benn action maanaam jël kaas bii su dee ci amee ñaar ak juróom gis bi dana leer ci moom waaye mag bi foog mu am fanweer ak ñaar mu daal di am différence ci gis bi ay image yu bari tubaab bi nga xam ne saay saay la te toogal fi iblis ci juróom-ñaari image yooyu léegi dugal information boo xam ne gone gi dana ko gis waaye yooyu juróom duñ ko gis nga xam ne man di koy gis naa ci ñu génnee image boo xam ne jàkka la ñu dessiné waa ji jël image bi ralentir ko ba mu yéex ba mu yéex waa ji ba muy tàmbali soror ba sàkkara góor la di ko dessiné waaye suñ ko avancé woon du ko gis waaye gone gi moom da koy gis gone gi lu muy wax ah li ñu génne lépp baax na ndax maa ngi toog sama woy jur di ko seetaan donc ñoom xaj ji wuñ ma dàq wuñ ma kon baax na mu daal di avancé def ci xelam fekk dugal nañ nag musiba ci ci xel nekk bokk ci pexe iblis en même temps gone googu fi la mel ba waa yooyu su mikkee ñu ko ci affaire wala crèche wala nangam li ci yoon doom ñu si jaar sax daañu ko xam da ngay dem mu jàng ñaari fan rek nga ñëw ne ko ah defal li mun a dee def suñu musée nee na nangam kilifteefu ak ndeyam teggeeku na bu yàgg xam ngeen lu gi war gi def su bëggee def dara yaay yi si buux noonu topp ko fële su bëggee def bàyyi bi loolu nangam duñ ko expliqué dara mu dem ci école ba nag ñu jox ko gëddal jox loo ko ci kaw di ko laaj xaatam mu yëkkati ak way nag nga am kii moo bëgg kon kii mooy kii sëñ loolu jeexital na ba jeexital ci suñu daara yi ndax soo gis soo gisee dongo yi ku ci xewal ne dañu yóbbu daara yi sàngam nag waaye ku ñu école sàngam loolu ci li ko waral mooy ca fii la leen kër ga ndey ji ngàtt baay bi du ma yar soo waxee sa juddoo te jàmm te duñu leen expliqué moom moo ba defaale ko ci daara yi moo tax eh, ñu yor daara war nañ xalaataat ba noppi ñu jàng ko ne muy nu muy xalaatee yóbbuñ ko ci daara ñu yóbbu ko ci crèche ñu génnee fa kilifteef daal jeexe dutul nangu kilifteef ndax suñu mag ñi bu njëkk dafa am nun daan yare gone yi da dem ci dëkk bi penc ci dafa daan am ñu ni maam diw su guddee day lee gone yëpp daw fàq nga xam ne maam mii lépp moom dund na àdduna lu baree bari bari am expérience xam nañu yare xam jeexital ci doomu aadama yëpp nu muy demee mu léeba leen joxaal leen seen soxla yi dem ndax bàyyi yeeg yooyu ni nga dem wuti dépense bi nangam gisatuloo benn